mi àndoon na ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Khadim ndax euh, waajuramu góor moo di Serigne daam Bassa moom Cheikh isaa Diène kon kenn moo ndox digganteem ak Cheikh Issa euh, ñu yàgg koo xam nag ci wàllum faj lu mel ne ay rab ay jinne ak yeneen ak yeneen yu ci aju yi tamit ñu dellusiwaat ci moom ngir fas yéene seq ak moom jataay tey ji ñu ñëwaat rek ngir lenn ci waxtaan yooyu ñu yeesal ko laajaat yeneen laaj yu yees itam yoo xamante ne bi bokkul woon ci waxtaan kon nag euh, du ñu def rek lu bàyyi ko mu nuyu mbokk yi ñu seetaan su ko defee ñu soog a dikkaat ci tomb yi nga xam ne tey ji daañu ko leeral rawatina nag ci wàllu jinne nga xam ne nii euh, liñ ciy déggandeem bëri na waaye bëri na tawat yuy dem ci doomu aadama bi yoo xamante ni bi suñ borom ci ñoom la ko jaarale euh, rab lan mooy seen wuute euh, yeneen xeeti tawat yi ñuy faral di dégg ay jabet ay yeneen ak yeneen mu mel ne am na suñ borom may kon loolu lañu bëgg a sàkku ay leeral ci moom ñu jox ko mu nuyoo ñu soog a dellusiwaat. na rajim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wassalaamu ala aadil amin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi shawridwan turkin mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sàll di leen siyaara di leen sant di leen baalu ak di baal ak ñëpp dañ leen di bàyyi rek ngeen di laaj li nga xam ne moom ngeen ci bëgg laaj di wax itam boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom la ñuy seqal tool boobu di ca jéggalu ci itam ci képp koo xam ne rek laa lañ lu de mel ne ki sa mbir ci dara ci saw sab tool waa lu na mel ndax leeral yi itam moo mel noonu ci xam-xam lañ nar a waxtaane te xam-xam itam lan la ci nekk pak jàmbur la waaye nag lañu gën a yitteel mooy lu gën a mën a tax nit ñi kenn ku nekk xam fa nga féete ak fa nga xam ne boo jógee fa ngay jëm ak fa teg sa tànk itam jërëjëf Cheikh Issa Euh, fi ñu koy tàmbalee euh, dafa bari tawat yuy dal doomu aadama yoo xamante ni bi saa su ne dañu koy gii ñi rab ak jinne euh, mu dooy waar loolu nga xam ne ñaareel bëri na luy dal nit ki daal dañ naan rab la wala ñu ne jinne la laataa ñu ñëw ci xeeti tawat yi ak ni ñu leen koy tegee ndax rab ak jinne am na wuute ba noppi. waaw loolu suñu war am na am na ak wuute waaw gi rab ak jinne daanaka benn benn xeet bi la rek waaye li ñuy tuddee rab mooy masalan. nee doomu adama ne ab kàccoor ci biir doomu aadama yi kàccoor bi terewul doomu adama lay doon waaye léegi ci biir loolu itam bu nee jinne itam ba pare daal ne rab ci biir rab rab ci biir jinne daanaka mooy kàccoor bi mooy ki nga xam ne moom dafay dafay nit ñi rab yi dañ leen a dañ jinne daf leen a daf leen daf leen a daf leen a ëpp te dañoo nekk ci seen biir te itam dafa am ak jaxasoo ko am ci ñoom léegi nag ci biir loolu dañuy nekk ci dañuy nekk ci bërëb doomu yi nekk fa léegi bu ñu fa nekkee dafay am ay xeetu jinne yoo xam ñoom dañuy bëgg dem ba dañuy mujj bëgg def bëgg a dund ihsaaniya dañuy bëgg nekk ci biir nit ñi ba dañuy àndaale ak ñoom ba daanaka dañuy bëgg a def seen bopp doomu léegi ci biir jëflante bi nag moom masalan dafay def loo xam ne sax xëy na euh, jàpp na ne jàpp na ne lu kii ci yow la waaye euh, loraange moo ciy juddoo di di di tegu ci doomu bi ci biir jaxasoo gi ñoom nag bu fekkee rab wi la bu fekkee jinne la jinne moom ñaare daanaka nit aw li muy am ci moom yitte du bari moom daanaka ci mbirum boppam lay xëy ci lay gont waaye bu dee rab yi nag moom mooy ki nga xam ne moom moo moom moo sonal nit ki moom mooy sonal nit ki loolu la tuddee rab ki nga xam ne moo jaxasoo ak nit ki di ko jariñ baa mu di ko lor moom mi tudd rab bu dee ki ci des nga xam moo nekk ci pakk bi moom di dund mbiram kooka moo tudd ci ne jërëjëf léegi nag kon lan moo waral ñoom euh, gannaaw bi ñu tànnee dund ak nit ñi ñu di leen teg ay tawat ak ay ay ay jafe-jafe wala yu mel noonu. ci cosaan ci cosaan lii njëkk a ànd gi mooy ci mag ñi niñ daan doxee ak ñoom ñoom kenn ku ci nekk dangaa baaxoo woon askan woon ne dangaa baaxoo woon di am looy def ci ñaare ñi ko yoroon te xamoon ko léegi loolu bu ñu demee ba jamono soppiku léegi nit ñi dañoo nekk ay niti taax lu ci bari ci cosaan loolu nga xam ne moom lañ baaxantaloon daan ko daan ko jëflante ak ñoom pour njariñ di ca juddoo sax loolu daanaka léegi day dem ba mujj gi jamono léegi dafa dafa dafa soppi ko léegi su ko defee askan yi kenn ku nekk ñii dañuy tukki ñi nekk ci bitim réew ñi nekk feneen gone ñi nekk fii gone yi nekk fi ñii dem say ci bërëb yi ñi dem say ci bërëb yi bu ko defee loola dañ koy daal di sàggane bi nga xam ne dootu amati sax léegi ci biir loolu nag léegi ci la ñuy tàmbali ñoom nag di doxal ak safaan ci seen diggante ak ñoom ñoom nag ma masalan su fekkee ci mbirum góor la ñaaree itam dañuy dañuy dañuy dañuy bëgg a dem sax ba dañuy bëgg a ànd ci ab sëy ak yu mel ni ki noonu ci ñoom sakk ko ci sàkk ko ci seen teg ko ci seen coobare bopp. léegi boo ko defee ci biir loolu day dem ba mujj gi sax euh, loola day daal di dem ba day day ëpp bu defee loolu loraange da ci daal di judd loolu euh, ñëw na fi ñëwati na fi sax daanaka ñu baree bari dañ ko fi indi néew kàttan dana ci dana ci dana ci juddoo ci boo dee jaxasoo ak moom. itam bu fekkee néew kàttan amu ci itam ba tey masalan man ngaa jël soxna soo xam ne doomu adama la ci jamono bi nga tollee ci denc soxna waaye bi nga koy jël itam boo nekkee ak moom doo doo doo nekk doo nekk doo nekk góor ga nga doona masalan doo nekk góor waaye boo tëddee yow dong ci saase moom da nga daal di gisaat daal di mën a àndaat ak moom ci ñetti yoon ci guddi gi mbaa ñeenti yoon ci guddi gi am na ñoo xam ne sax day day yées loolu am ñoo xam ne itam daanaka buñ ko kiiyee benn yoon ca lay yem ànd ba du nekk àndub àndub àndub àndub ak neen da ngay yëg ne lii maanaam moo ko ànd ak sa soxna sa rek benn lay daal doon euh, ci loolu ba tey itam bu dee bu dee bu dee góor la itam noonu lay nekk waaye bu dee jigéen itam nag moom day dañuy ànd ba mujj gi sax ëmb daf cee sosoo ëmb bi xam naa danañ ko leeral ci kanam tuuti bari na itam lu mu fiy ñëw yaakaar naa ne doomu aadama yi bari na ci bari na ci jigéen ñi Eh, eh, badana la badana lay doon comme yéen comme ni nit di ni nit di nekkee ni nit di nekkee di nit di denc ab ëmb lay nekk mm-hmm. day yëngu ci biir bi day def lépp day day dem ba day toll waxtu xam ne day mel ni den nekk dana matu dana war a matu tey mm-hmm. waaye bu ñu demee ci hôpital yi am boobu docteur bi mënu koo gis loolu mbiram eggu ci waaye am boobu mën naa diire itam lu dool ci ñaari at mën naa diire ci ñetti at mën naa diire ci am at mën naa diire ci ñeenti at itam da lay nekk biir bi day jóg ni mu war a jógee te bu tëddee itam dana dara dana wëlbatiku ci biiram dara dana nekk di wëlbatiku ci biiram loola ñaare bu ñu ko boo ko dindee day mel ne ay day mel ne day mel ne misalan ay nen am na ñoo xam ne buñ ko dindee day génn noon rek waaye comme ëmb doon loolu itam ci ba tey ci mbirum jinne lay bàyyi feebaru rab la boo xam ne bari na lu muy nekk ci ci ci ci ci ci jigéen wér-dig jigéen la lu muy nekk ci jigéen ci jigéen bu amee faru rab dana ko dana ko def noonu dana ko def léegi nan la ñuy def nag ba teg nit ki maanaam mu mel ne ku war na lor ak loolu yan jafe-jafe la mën a. waaw maanaam man la war na lor moom ni ñuy def ak moom mooy dañuy dañuy seq ak moom ab ànd comme ni ñuy seqee ak sa ak sa ñoom dañ koy seqee ak nit ki ab ànd doomu bi nag loolu day ëpp ci moom day dem ba mujj gi loraange moo ciy juddoo ci ci di ko ci mu koy tegoo. léegi ci biir loolu nag moom dana day dem ba mujj gi nag bu dee jigéen gi moom day toll foo xam ne day war na lor moom bu dee jigéen itam am na ci yoo ñoo xam ne ñoom ni ñu koy amee mooy duñ duñ àgg ci wana lor waaye nag da leen di tee am borom kër duñ mën a am borom kër masalan bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu kiiwee ku leen seet si itam dangay ngay daal di dem ku nu ku nu ku nu waxaat ku nu waxal itam mébét loolo du mujj day mujj du sotti day mujj du sotti léegi nag ndax dindi leen wala dàq leen na yomb daal dana yomb ndax xeex ak ñoom bañ bàyyi nit ki dana yomb. waaw loolu ci borom xam-xam bi nga xam ne xëy na lam cee wootee lu wër la ci moom moom loola du jafe ci moom du jafe ci moom rab nag man ginnaaw bi dama ciy dégg ay wax yu bare bare ci nit ñi ci borom xam yi nga xam ne xëy na dañuy dem ci dañuy ànd ak nit ñi ci ay waxtaan ak yu mel ni noonu dama koy dégg ci dama ciy dégg ci ñoom ay wax yu waroo yu bare bare waaye lépp rek ci ay wóote yu bare bare yoo xam ne da ci da ci da ci am ñoom jëmm la ñuy doon tey itam daanaka melokaanu jëmm doomu adama dañuy dañ ci dañ koy mel lu bari bari na ay askan nag bari nañ ay melo waaye daaba lu ñu nuroo rek loo nuróog daaba ci loo xam ne yàlla sàkk na ko rek tam am ci xeetu àll bi wala yooyu ci nu ñuy mel rek na melo na melo raboo di mel ñaare moom la ñuy moom la indi wala moom la ñuy gën a jege ab am nekkal noonu la ñuy mel ci askan yi yëpp waaye monsieur Soucé dégg mbaa ñu gis ci mbaa liir ci benn xeetu xam boo xam ne gis nañ ne gis nañ ne jëmm ji day nuroo jëmm ji bakkan yi ak bët yi dañuy dekk ci biir ci mbox bi wala yooyu tëdd dëgg la nag kàccoor gu ñu leen di jiñ nag moom lu ko lu ko yées mu ngi ci ñoom itam lu ñuy xëy di yàq ci mbindeef yi daanaka ñoo gën a sonal doomu adama bi moo gën a sonal nit ki ci ci ci ci lépp lu mën a doon waaw ndax ñoom jëflanteeg ñoom yomb na comme ni nga xam ne léegi ku jug rek mel ne daa daa am ci ñoom wàll wala joti na ci ñoom wala mën naa jëflanteeg ñoom ndax yomb na ci bu ci borom xam-xam bi wala ci doomu aadama bi ci borom xam-xam bi waaw loolu li gën a jafe mooy loolu ci borom xam-xam yi léegi comme jamono ni mu yàqoo ni nga xam maanaam ñaari nit ku ne nit ñu ne léegi ñu ci bari dañuy am ci ñoom aw yoon wala muy muy mérito lu ni mel ci borom xam-xam bi nga xam ne day jóg di dox ci lu mel noonu ci liñ koy dénk moom kooku masalan bu fekkee woor na ko ni xam-xam bi nekkul ci moom muy bañ a sotti muy bañ a sotti garab ci lu demee ni ki njàpp tollu rab yu mel noonu moo gën ci moom fekk li mi ngi mën a nekk ak euh, bëgg alal ak yu mel ci ki noonu itam boo xoolee jaru ko ci bu fekkee xam-xam bi nekkul ci yow jarut nga di ci jéem a sotti garab mën ngaa xool weneen yoon woo xam ne mën nga koo jaar ak nit ñi xay na ca la la ca yitteel waaye jëm ci mbirum rab bu manee ñàkk te amoo ci xam-xam mooy li nga xam ne moo gën rab nag am na ay yoon yu ñu leen mën a yu ñu leen mën a yu ñu mën a jëflante ak ñoom saafara ko loolu xëy na fekk nañ ko fi waaye yàgg nañu di dox ci xeetu xam-xam bare bare bare bare ci xeet xam-xam yi itam ci loo xam ne jógaloon nañ suñu bopp ngir saytu ko ak ci li nga xam ne fi lañ ko fekkoon itam waaw waaye daal li gën a wóor te nga xamante ne si mooy li nga xam ne mooy njariñ li ci doomu adama bi ci boo amul xam-xam ci ci mbirum rab jërul nga di ci jéem a sakk garab mbaa nga di ci sotti garab goo xam ne wóoru la te itam sax xam-xam àggu ci waaw. Euh, euh, laataa am nañ poñ yu ñu war a ñëwaat sax waaye ñoom euh, la ñu mën ci li nga xam ne jot nga koo gëstu ci xam-xam ci seenu dund seeni at seenu njaboot wala seenu dundin wala seenu nekkin euh, rawatina ci li nga xam ne wuute nañ ko nit waaw ñoom nag masalan euh, dañuy mën a bokk nañ ci li yàlla bindil ci li gën a mën a gudd aw fan ci li yàlla bind ci moom ci li ñu saytu ci téere yi yëpp ak li ñu gis ci ñoom te itam mosuñu ci gis koo xamante ne si dañoo fekk ab juddoo wala yu mel ki noonu. maanaam maanaam maanaam koo xam ne xam nañ ko ci te fekk ab judóom wala yu mel ni ki noonu daal ñu dégg ko ci kenn déedéet dañuy yiñ ci xam ñëpp te fekk lañ ci teer yi ak yu ne mel ñun ñëpp daanaka fi leen fekkoon te te loolu woon na daanaka ay ati at ay junni junni at mën da wala mu jige ko kon ñoom masalan ak e, xeetu xeetu till itam rab la woo xam ne bu mën a gudd fan la ci jige na ko moom day xaw a yor melokaanu xaj te itam ci àll bi lay nekk waaye nag moom itam rab bu mën a gudd fan la waaye ab limam ci ay fan moo day toll ci ay ñett téeméeri at ñett téeméeri at jamono waaye raw jinne moom ci li ñu xayma ci moom ci ay at day def ay junni at moom da koy mën a dund te yàq dara ci kàttanam te du ko tax a loof itam du ko tax waaye du ko dara wàññi dara waaye nag ñoom seen mbir lépp ci kilifa la ajo ci kilifteef la ajo ñoom dañuy tënku ci kilifteef ñun ñoom sax daanaka ñooñu gën a ñooñu gën a mën a tënku ci kilifteef ci ñun doom aadama bi ni ñuy amee kilifa ci biir kër gi ñoom ñooñu gën a mën a aju ci kilifteef ndax ñoom Euh, fii daanaka wax borom kër bu ne yaa yëlif sa bopp waaye ñoom askan wane sax dañuy àkk ci dañuy am kilif yàgg ci am kilif ña ca des nag nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci ñoom ñi nga xam ne dañuy yàgg ci dañuy yàgg ci bërëb bi ñu dëkk comme niñ ko leerale woon léegi nga xam ne dañuy am ak jaxasoo ak doomu aadama yi ba dañuy dem ba mujj gi ay loraange da juddu loolo mooy ki nga xam ne moom moo xaw a gàntal kilifteef googu nekk ca nekk ca la ko la ko soob xaw a dund insaan ya kooku moom dana xaw a gàntal kilifteef dara dara waaye li gën a wér daal mooy ñoom ay jëmm lañ yoo xam ne yàlla da sàkk te itam seen lépp ci kilifteef lañ aju daal. maam Cheikh Issa da daan jëflanteeg ñoom loolu moom siiw na ñëpp nangu nañ ko. Mhm. ndax doo ñu mosal tuuti rek ci jëflanteem ak ñoom tuuti rek. sëñ Issa de moom meneen mbir la. yal nañu yàlla taas dara ci barkeem. te biri ko ay leeram waaye sëñ Issa mbiram ci ak digganteem ak jinne yi ni mu daan tarbiyaa doomu aadama yi ni la leen daan tarbiyaa nii doomu aadama bi daan jokke ci ci ci ci ci moom itam ne lañ daan jokke ci moom yaakaar nañ ne sax ci ab xayma ci lim yilifoon ci ñoom yilif ko woon ci nit ñi yilif ko woon ak li muy bëri bëri ci nit ñi lim ci ñoom yilif ko woon ci nit ñi moom nag jëmmala woon joo xam ne lépp lu ci ci a nit mosaana jaaxle ci ñoom boo mosaana dikk ci moom da ko daan saafara ba mu demee ba ak jotam matewu ko itam daanaa taxawal benn barab boo xamante si saa boo fa mosaan indi wéradi gu mel noonu masalan lu demee ni ki ab gopp wala bant bu muy samp ci barab wala dara ci barab booba boo fa musaana taxaw daana ko saafara ci foofa ci jàkk gisante kon xam-xamam yi àggoon na ci fenn fi moom nag njaboot gi mu fi bàyyi woon daanaka ñoom itam ñi ngi fi ba léegi daanaka jóguñu fi ni fi nekk war lañ fi nekk ba léegi waaye sëñ Isaa kenn la ci ñoom ñun mënuñoo mm, mel ne moom waaye rek dañuy topp yoon yi mu jaaroon te ci jéem a jaar ba suñ jéem a sàkk ci suñu borom sax ak mel ne moom ndax mbirum suñu Tuubaa fu lu mu def xëy na ñun mën nañ ca naax na mustara ci ak leer waaye nag duñu mën a mel ne sëñ bi waa sëñ moom li manoon ci ñoom yaakaaruma ne kenn mën na ko ci ñoom te mosuñu koo dégg itam eh, ci Souleymane lañ ko ca dégg lu mel noonu ci Souleymane lañ ko ca dégg lu mel noonu te loola ab sababam mi ngi tàmbalee ci suñu Tuubaa yaakaar naa ne waaw. waaw jërëjëf léegi kon ñu ñëw nag ci yeneen xeeti tawat yi. Euh, wax nga léegi Cheikh Issa tamit sax wax nañ ne moom euh, wàllu euh, koo xam ne dem na ba mënatut a doxal mbirum këram. Mhm. da ko daan dindi ci ay simili. ndax loolu bàyyi na ko fi. waaw ah, loolu itam sëriñ bi bàyyi na ko fi bari nañ itam lu mu daan lu mu daan dimbalee doomu aadama bi ci lu mu mënta ñàkk ci ak wéradiyam wala yu mel ni noonu loolu itam sëriñ bi yóbbaale ci dara daanaka lépp da fee bàyyi moom ci lim daan dimbalee nit ñi ci lu jëm lu mel noonu daanaka. loolu yëpp moom bàyyil na fa ak njabootam moom yóbbaale wu ci yóbbaale wu ci lenn ci yóbbaale lenn waaw lim daan ngóor yi itam moom day loo xam ne ci gone yi daa bari ay xeet nit ñi dañuy dañuy jóg di ñëw fii sax daanaka ci lu ci bari ci wàllu kartan ak yu mel ni ki noonu waaye mbirum kartan dafa am ñaari xeet yoo xam ne bokkuñu masalan sax ñetti xet yoo xam ne bëkkuñ muy tele dafa am tele nag masalan mën na laa dab. ci loo xam ne rab moo la koy teg bu fekkee wéradi googu la moo gën a neex a saafara boo fekkee dafa de lañuy tuddee néew kartan néew kartan masalan ay caaxaan mën na la ko bañ a teg ci ay bind ay askan ak yooyu am na ci ñoo xam ne seeni askan dañuy bindoo néew teel a néew doole loolu dana am am na ñoo xam ne nag ay gone yoo xam ne sax dañuy ñëw fii te anaka dañuy toll ci ay masalan fanweeri at yi dana toj dara kooku kon te day indaale ak néew kattan koo xam ne daanaka mag mi nga xam ne am na 50 ans sax daanaka du du ci àgg masalan du man dara kon kooku xale la waroon naa mën a am waroon naa mën am dara ci kattan kon néew kattan googu itam ba tey meneen mbir la mi nga xam ne mooy dal gone gi nga xam ne gone gi nga xam ne dafa toll ci dafa toll ci digg-digg jamono ba pare ba tey am ci moom te wéré di googu mooy gën a doy waar gi nga xam ne moom ngay moom ngay taxawalal mag mi duñ bokk ci bu la ko ci bu ak li nga xam ne mooy am duñ bokk néew kàttan nag ci gone gi ñaare eh, ñoom lañ koy defee ci nit ñi fii ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di ko sàkku si ci li ñuy nett nga di ko dégg ndax mbirum àddina la ci la ñuy wax ñoom mbirum àddina la loolu boo ko leeralut borom xam-xam bi xëy na mën naa bañ a xam ni loola moo la ko teg sax xëy na yow maanaam masalan muy li ko demee ni ki ñoom ñi ci ëpp ci ñi nga xam ne dañuy ñëw di ko sakku si ñooñu dañuy bu dee ci gone yi ñoom daanaka dañuy fay seen bopp ñaare moo leen koy teg du jigéen moo ko koy teg wala yu mel ni waaye dinañ di fay seen bopp bu dee ci ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ay boroomi soxna lañ ñaare itam topp seen bakkan itam ci seen soxna ba ëpp ca loola itam dana leen ko teg waaw loolu itam leen ko teg bu dee itam maanaam li nga daanaka boo xoolee néew kattan ak tànk yu metti daanaka itam ñaari wéré délai yoo xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo taqaloo ci li ëpp ay tànk itam ndoxum siti dana ko métti waaye loolu mbinu mbir la waaye itam ñaare itam topp sa bakkan ci wàllu jigéen itam ba tey li ëpp ci yenn xeeti tànk yu métti ak yooyu ñaare du doon doxu siti itam ba tey loola da koy da koy da koy da koy waral ba tey la goo xam ne ñoom ñaar ak lu ki digg li ak ki digg li métti ak yu mel ba tey itam daanaka boo dindee boo dindee boo fajee tawat ji tawati gi loolu yëpp day daal di matale waale ba tey kon daanaka benn xeetu dayo bi la rek ñoo ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp bu dee ci bu dee ci gone gi nga xam ne dafa faye boppam kooko moom moo gën a naqaree faj ci ki nga xam ne daf ko coobare woo rek dafa dafa tële bu dee tële gi moom mënees na koo daal dindi ci saasi ko ci comme ni ko sëñ bi daan dindee su fekkee wéradi la goo xam ne da néew kàttan goo xam ne rab koy def itam mënees na koo dindi ci ni ko sëñ bi daan dindee loolu mën naa nekk moom mënees na koo daal dindi ci saase ci saase bu fekkee da ngaa yor ay soxna itam masalan soxna yi nga yoroon yaa ngi doon mën ci ñoom waaye gan gi fi ñëw bi mu agsee moom doo man ci moom itam day am maanaam da ngay am soxna soo xam ne gan lay doon waaye kooku bu ñëwee doo man ci ma boo waree dem ci ñee nag boo demee da nga ne da nga da nga man ci ñoom waaye boo jógee ci ñoom ba dikkee ci gan ki doo man ci ñoom léegi mu dem ba yàgg mënoo ci ki fi mujjoon ñoom ñaar mënoo ci ñoom waaye yàgg man ki fi njëkkoon yi dem ba yàgg dootoo man ki ki fi njëkkoon doo man ci kenn ci ñoom ñaare koo ci nekkal day mel ne yéen ñëpp ay jigéen gan rek masalan ci gàttal waaw léegi loolu itam wéradi la goo xam ne mënees na ko daal di saafara moom ci ni ko sëñ bi daan saafara ba tey benn xeetu kii bi rek mbirum rab la loolu moom foo ko fekk rek mbirum rab la maanaam nekk boo wéetee nekk am kattan boo nekkee boo nekkee sa soxna doo yëgati loolu moom loolu moom mbirum rab la loolu mënees na ko saafara moom loolu loolu itam ana yan xeeti tawat xam naa sax bari na waaye yooyu ñu ci mën a limal tuuti rek yoo xam ne di nga ci di di nga ci jàppale askan wi waaw wéradi yi nag bari na ci loo xamante ne si danañ ci di jaflante ak nit ñi rëdd yooyu ñaare ngóor a ci ci la la bokk ak euh, la ñuy tuddee sopis itam ci la bokk sopis yitam ci bànqaas bi la waaye sopis itam day mel na nit ñi mën ko déggee dañuy jàpp ne wéradi ku aji nit ku jubati la ak yu mel ni ki noonu sopis li koy teg euh, doomu aadama bi mooy nga nekk ak sa soxna bi ngeen paree ci farata nga daal di continuer daal di nelaw te demoo tuuri ndox wala yu mel ni ki noonu yow ku góor ki da ngaa war a dem tuur ndox bu ko defee daal di yasluwaat ba tey soog a daal soxla woo ay nelaw bu fekkee da soxla wo ay nelaw rek saase foofu soppis mën na faa am ci li ëpp ci ñi muy dal am na ñoo xam ne sax dañ koy indi fii ànd ak moom waaye daal li ñuy yaakaar ne rek daraan def lu kenn yëgut ak yu ne mel waaye déedéet du loolu masalan li koy indi ci li ëpp ci nit ñi ci li leen koy teg mooy dañuy ànd ak seen soxna ba noppi daal di wëlbatiku ci saase daal di soxla woo ay nelaw foofu bu ko defee mbañu ko bi day ci day wow bu fendiwaalee ak li ci li ci nekkoon li ci génnoon léegi foofu bu xëyee bu tuuree ndox rek day daal di bu fetee rek day daal di nekk suppiis xam nga suppiis docteur yi danañu ko dindi waaye bu ñu ko dindee ñoom nañ koy dindee masalan mën ngaa bañatee mën na laa mën naa mën naa jaaree daal maanaam nga nekk nit koo xam mën ngaa soppi ko am ca daal moo tax sëriñ borom xam bi dindi ko mooy gën mooy gën ci mooy gën ci doomu aadama bi waaw ba itam am na lu ñuy tuddee suukar itam nit ñi danañ ko fi di lu bari moom jabetit itam am na ñetti xeet am na ci boo xam ne moo gën a neexa dindi ci xeetu sukar am na ci boo xamante ne si nag moom ñaare day day day day doon loo xam ne day day jël day jël waxtu yu yaatu day jël waxtu yu yaatu am na ci boo xamante ne si moom waxtu woo du ko tax demee noonu waaye am na ci boo xam ne daal moom ci saase ci bu accès ci diir ci diiru ñaari bis ñetti bis mën naa daal di mën naa daal di tane yaakaar naa dindi nañ ko fi ñu baree bari ñoo xamante ni ay ñoo bokk dëkk bi itam ay nawle ñii ay nawle lañ ñii ay ay taalibe lañ ci dëkk bari na ci lu demee ne ki suukar waaw ndoxum siti yi noonu ndoxum siti yi noonu ndoxum siti moom danaka wéradi la goo xam ne banqaas bi yaatu la moom itam tam yaakaar naa liñ koy saafaraal doomu adama yi bari bari na lool bari na lool ci nit ñi ñëw fii waaw lii nga xam moo gën a moo gën a moo gën a moo gën moo gën a nekk li nga xamante si daal mën na ci di gën di dimbali doomu adama mu wéradi gi nga xam ne docteur bi gis ko ñaare fu ko nit ki gis rek buñ ca jotee mën nañu ko mën nañu ko daal di saafara ci suukar itam daanañ ci dimbali nit ñi waaye ci bi ñu fi daan ñëw ni ñu fiy ñëwee day xaw a bari lool day ëpp day ëpp bu fekkee mën nañ ñu doomaa dama bu ñuy ñëw mën nañ koy def ndànk-ndànk ndànk-ndànk nga xam ne suukar loo xam ne dañ koy mën a jëlandoo ci ay doomu aadama yu bari day xaw a tardé xaw a loolu taxoon na daanaka ñu bàyyi woon koo ñu bàyyi woon koo jëlal kenn sax suukar dafa bari te ñi nga xam ne ñoom lañ dal ñëpp bu ñëwee dañuy dañuy ñëwandoo te itam bu ñu ñëwandoo du neex a lijjanti waaw loolu bokk na ci li taxoon ñu ñu ñu xawoon koo gàttal tuuti waaye bu fekkee ñëwin wi danaa xaw a tegu ci aw yoon mënees na leen ci dimbali itam ci anam yu xam ne mooy gën a mooy gën a mooy gën a gaaw mooy gën a gaaw ci di leen ko docteur yi di dinde ay xeeti ñaan yi ay dugg xalwaak yu mel noonu xanaa di koy def xare moom xalwatu moom euh, ñun ci li nga xam ne moom la ñu moom la ñu xam xalwatu yaakaar naa ne duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko tëjul duñ ko tëju ci ngir aajo yi aajo joo xam ne doomu aadama diis nañu ko rek ndax euh, maanaam li jariñ nit ñi ci waxtu yi moo ma gënal di tëjul benn mbindeef ci kaw di ñàkk kon day mel ne masalan damay xaw a néewal doole ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi amut luñ dugg loo xalut ngir féete woo kenn sukkandiku ci ab am amam ba tax ngay wéet ak moom taxal yoon déedéet damay ci am ak ki ñàkk ñëpp cooy am ci ñun képp képp koo xamante si maanaam dayoo ba nga xam ne moo la yëkkati la nga xam ne mooy jëflante ba ak la ca aju ci ak la ca aju ci ci ci ci ci man koo lijjanti boo ko mënee matale mënees nañoo jëflante moom duñ ñu duñ duñ duñu tëju kenn duñ ken duñ jàpp kenn te bay kenn ngir xalootu xalootu moom ñaare liñ koy def buñ ko dee def dañ koy maasa def ngir ñëpp waaye wéetal ko nit defal ko ko itam day day xugi nga xam ne dañuy am wéradi xel nag waaw wéradi xel itam moom des na ko des na ko saafara ndax ba tey itam moom rab la am na ci yeneen xeet boo xam ne xëy am na ci mën ñoo xam ne si maam leneen moo leen teg loolu moom xëy na ko waaw am ñenn ñoo xam ne moom moom rab la li ëpp ci wérat yi xel yi rab la bu dee rab la moom maris na ko dindi moom itam bu itam ci ñi nga xam ne leneen moo leen ko teg itam ba tey loola itam maris na koo saafara loolu itam maris na ko maris na saafara. fi bëgg ñëw da koy sàkkal ay bis wala xanaa waaw moom moom ñëw gi moom képp koo xamante si kii nga bu bu yëngatoo ci numéro bi rek wala téléphone bi wala yu mel ni ki noonu moom mënees na ci ko daal di daal di kii. yi ñu tëjee rek. waaw li koy tëjee mooy ak rek la ak di di di di di ñaanal mbokki jullit yi di ñaanal mbokki taalibe yi itam saa yokk leen ak di sant sëñ Abdou Latif Diène xalifa général de Diène sant sëriñ Mountakha Mbacké xalifa di leen sant yéen ñi nga xam ne jamono bu nekk yéen ay dox ci yu mel nii di lu am solo di leen ñaanal itam suñu borom yaggal leen fi te guddal seenu fan te yokk seen góor yitam ci kàttanu suñu bi di sant bu baax di gërëm ñëpp salaamaaleykum